Euh, suñu teewaay fii tey euh, dafa di euh, mu tombe si période tabaski te ku ne tabaski xam na ni xar dañ koy jëfandikoo lu bëre te ndawal bi aussi dañ koy jëfandikoo lu bëre voilà loolu la. du coup ñun en tant que technicien yu yëngu si garab dañ ñëw sensibiliser éleveurs yi si yenn comportement yu ñu war a am si période bii nii surtout si utilisation garab yi. Euh, maanaam euh, respecter délai d'attente yi maanaam diiru nëgëndiku yu ñu war a xaar bu ñu injecté benn produit euh, ak phénomène résistance antimicrobienne yi maanaam derkis bu ñi ñi dërkis tey si yenn garab yi nga xam ne ñu ngi leen koy jox ba mënatu leen faj du coup looloo waraloon tey suñu déplacement ñëw si daral bi tey waxtaan si éleveurs yi pour ñu gën a bàyyi xel si phénomène yooyu conséquence bi dafay bëri parce que imagine toi benn xar bu ñu piqûre euh, te ñu rendi ko ñu koy lekk ñooy bëri donc di coup effet yu muy am du yem si kenn rek maanaam ñëpp ñu lekk si ndawal boobu au moins euh, conséquences yi dina si am maanaam résidus antibiotiques yi maanaam euh, antibiotique boo joxee dafa war a am délai d'attente bi nga war a respecter baay ba tooke bi deñ si mala bi balaa nga kaa mën a rendi délai d'attente bi euh, kooku c'est un peu euh, spécifique du man maa koy définir du éleveur bi moo koy définir mais laboratoire bu defar garab bi moom mooy définir délai d'attente bi délai d'attente bu antibiotique bu nekk am na délai d'attente am bu bu bu bu mu àndal bi nga xam ne moom nga war a respecter boo injecté euh, mala bi moom nga war a respecté pour nga mën jëfandikoo ndawal bi. te ñu ngi sensibiliser ñii ñi éleveurs yi également ñu gën a bàyyi xel si phénomène yooyu comme ça parce que tey lu ñu seetlu mooy hôpitaux yi bëri na ay malade yi nga xam ne ñu nga fa tëdd euh, ñii ñaa ngi leen di faj set ak molécule molécule yu war yi antibiotiques yi mais amul benn effet parce que jot nañu jëfandikoo ay ay ay ay ndawal yi nga xam ne am nañu ay résidus d' antibiotiques looloo tax mën na fi ñu leen faj kay pour ñu sensibiliser éleveurs yi. ci délai d'attente bi qui n'est pas du tout respecté chaque fois moom gars yi duñ ko respecté suñu waxee dëgg rek duñ respecté délai d'attente yi par rapport ak cas bi ni mu leen di ñëwee ou bien par rapport ak coût euh, soo waree dem ci vétérinaire bi tuweetu li mu leen dikkee donc auto auto euh, médication laa ko mën tuddee la ñuy defal seen bopp donc baax na trop aussi ñu ñëw ñu sensibiliser nit ñi parce que li des euh, li des ci tabaski bi gàtt na trop et loolu sax même hormis tabaski sax dañoo war di bàyyi xel bu baax ci loolu parce que des fois nit nga yor sa jur nga am ak moom ay tolof tolof ci biir kër gi nga dóor ko ay piqûre dóoraat piqûre tanewut nga jël ren di jox waa kër gi ñu lekk mooy indi résistance yu des fois souvent ñuy wax ne ko yenn garab yi mënatuñu faj c' est parce que antibiotique bi nekk ci biir yaramu nit ñi dafay muy am ay conséquences par rapport à ça donc loolu lu baax la vraiment pour euh, daral yëpp. avantage mooy ne ko nga bañ a yàqamti nga xam ne ko euh, dinañ éviter loolu bëri parce que tey aussi nga. teel ko rey wala nga bañ ko rey dina tax nga mus muscal musal ay nit ci yenn résistance yu yenn feebar yi loolu mooy gën a doon avantage aussi c'est pas la l'aspect pécunier mais nga xam ne ne ko nit bi nga xam ne ne ko tey tax nga ba lekkul ci yàpp boobu noonu dina mën a faju normalement wala garab bu mën a jël dina am effet ci moom waaw loolu moo ci avantage bi ëpp solo en par rapport par rapport ak euh, li waa ministère bi def nii